vidéo bi la ñi ngi ci and ak agence immobilière Diaspora Sopp Nabi ak Nabi boutique. coup d'état mo am ci réew mi nga xamantene modi Soudan ba lu mot ci 97 personnes ñak fa seen bakkan li ci gëna a nak moy ñaar ñi nga xamantene ñoo amul coup d'état bi bu arriéré bien sûr ba ci atu 2021 ñom ñaar ñoo bolé won daani ngoru ki nga xamantene modi Omar El Bachir. mais nag ci diggante bi ay tension yu méttee métti dafa juddu ba ñàkk a déggoo am ci seen diggante ba finalement fi nga xamante ne foofu lañ mujjee mooy yëkkati ay arme jublu ci li nga xamante ne moo di guerre commencé nag samedi bi nga xamante ne moom lañ weesu ñu sentir ay tension yu métti yoo xamante ne am na ci réew mi nga xamante ne moo di Soudan lan nag moo waral tension yi am ci réew ma beneen question bi mooy lan moo waral ñaar ñi nga xamante ne ñoo comploté woon ba daaneel nguuru Omar El Bachir tey ñoom ñaar ñoo jàkkaarloo def guerre incha allahu taala léegi léegi laa lay résumé expliqué la ba nga comprendre lan moo xew ci réew mi nga xamante ne moo di Soudan ak tension yi nga xamante ne je pense que ni yaa ngi ko suivre ci actualité yi lan moo ko waral léegi léegi laa la koy résumé. njóo ko yom po wala sax mën a dem balado dafay dépendre rek ci waxtu bi nga xamante moom nga wax tension yi nga xamantene amna mu am plus précisément ci du Soudan bi nga xamantene modi Khartoum wax nañ ne gën nañ ko dégg ci atum 1960 ba tey ñaari généraux yi nga xamantene ño fondé li nga xamantene modi conseil souverain ci réew mi di Soudan kenn ki di wuyu ci turu Abdel Fattah al Burhan mu nekk bien sûr président ci réew bi nga xamante ne moo di Soudan keneen ki nag moo nekk ki nga xamante ne moo di le vice président ba tey mu nekk pro-russe muy wuyoo ci turu Mohamed Hamdan Dagalo ñaar ñi nag mën naa ne guerre bi ci ñoom la jógee ñuy sentir ay violations yu métti yoo xamante ne am na ci réew mi nga xamante ne bien sûr moo di Soudan mais nag tension yi dafa gën a métti ci capital bi nga xamante ne moo di Khartoum donte ne aussi yeneen zone yi nga xamante ne moo nekk ci réew ma c'est-à-dire yeneen gox-goxaat yi nga xamante ne moo nekk ci réew ma ba tey ñu ngi fay sentir ay tension situation bi nag jaxasoo na lool ci réew mi ba tey sax am na ñuy wax ne lii li muy nuru rek mooy ab guerre civile. combat yi nag mi ngi dox bien sûr ci force paramilitaire ñu gën koo xam si RSF li muy signifié nag mooy force de soutien rapide. ki nga xamante ne nag moo leen di jox ndigal wala ki nga xamante ne moo leen di jiite mooy le vice président ci réew mi nga xamante ne moo di Soudan mu wéy ci turu Dagalo benen force bi nag mooy armée bi nga xamantene ne moo di armée nguur ga c'est-à-dire armée état bi ki nga xamantene ne moo ko yor mooy wuyu ci turu Al Burhan ba fi may wax ak yow nii nag moo nekk président ci réew mi nga xamantene ne moo di Soudan bu fekkee ne nag situation bi changé wul daanaka nag mën naa ne ñoom ñaar seen dënn yi dafa jóg ba tàng lool ñu yëkkati ay armes yoo xamantene yu puissant la di ko sànnante yemuñ ci armes yi nag kenn ku nekk ci ñoom mi ngi taxaw di wax ne fu mu toll ni guerre bi moom moom moo ca teg tànk parce que yàgg naa di fi waxte dina ko répéter waat encore une fois guerre nekul ay armes kese yu ñuy utiliser diko tirante mais aussi communication dafa nek lo xamantene bokku bokk na ci li gën dangereux ci guerre. lool nak mo waral ba jamono ji ma lay waxe yow ni mënu ñu nak guerre bi ki mo tek tank c'est-à-dire mënu ma la né ki mo jekku morom bi li nga xamantene dal daal leer nañu naññ naññi mooy armée bi nga xamantene ne moom lañ gën a ci force de soutien rapide dafa nek armée bo xamantene bu puissant la am na wax sax né tollu nañ lum mu tuuti ci 100000 soldats. question bi may njëkk a répondre nag mooy kan moo créé force paramilitaire bi nga xamante ne moo songu nguur ga di amal li nga xamante ne moo di coup d'état bi RFS nag benn force la woon boo xamante ne daf doon nekk ci wëtu njiitu réew Soudan bi nga xamante ne moo di Omar El Bachir di ko jàppale ci xeex yi nga xamante ne daf ko doon def ci jamono jooju nag ñi ngi ko gënoon a xamee ci tur bi nga xamante ne moo di Janjaweed mais nag ñi ngi gën a ci xeex bi nga xamante ne ñi ngi ko doon amal ak rebelu Darfour yi loolu nag mi ngi amoon bien sûr ci année 2000 yi mais nag faaw ma préciser encore une fois que ne force bii nii wax nañ ne am nañ ay lëkkaloo ak corps bi nga xamante ne moo di Wagner parce que force bi nga xamante ne moo di Wagner bu ngeen fàttalikoo bu baax a baax moom ak armée russe bi ñooy xeex ak réew mi nga xamante ne moo di Ukraine mais nag pour ngeen gën a comprendre dëgg-dëgg fan la tension une fois ba ci année ki fi nekkoon njiitu réew ci jamono jooju moo nekkoon Omar El Bachir ñaar ñi nga xamante ne ñooy xeex tey ma wax leen ko sànq kenn ki di wuyoo ci turu Dagalo keneen ki di wuyoo ci turu Al Burhan ñoom ñaar ñi ñoo comploté ba daaneel nguur ki nga xamante ne moo di El Bachir mooy Omar El Bachir Bengelloune bi nga xamante ne daaneel nañ ko nag dañoo sampaat beneen nguur ci réew ma li nga xamante ne moo di démocratie ñu wéy di ko doxalaat ci réew ma parce que nguur gi nga xamante ne moom lañ fa sampoon dañoo woote woon ay élection peuple yi dem ca mbañ gàcce voté fal beneen président mais nag bi nga xamante ne woo nañ peuple bi bañ voté bañ fondé beneen gouvernement ni nga xamante ne noonu la gouvernement boobu doon doxalee neexu leen loolu moo tax ñoom ñaar aussi dañoo complété waat daane laan nguur googu biñ paree nag ci loolu dañoo récupéré waat pouvoir bi fondé li nga xamante ne moo di conseil souverain ci réew bi nga xamante ne moo di Soudan ñoom ñaar ñi nga xamante ci ger bi nga xamante ne wax naa la ko sànq ñu gën ko xam ci fuur ci jamono jooju ki nga xamante ne moo di Al-Burhan moo nekkoon commandant ci guerre bi bu fekkee dagaaloo nag dafa nekkoon ci biir terrain bi ànd ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee ci turu Janjaweed ñu nekk ci terrain bi di ko jaayante mais nag wax nañ ne ki nga xamante ne moo di dagaaloo dafa wane woon ak xarañte ak njàmparte bu exceptionnel ci bi nga xamante ne moo amoon bi guerre boobu weesoo nag ci la Omar El Bachir créé force bi nga xamante ne moo di RFS fal ki nga xamante ne moo di Dagalo mu nekk commandant ci force boobu noonu force boobu nag ñoo somb ci réew mi nga xamante ne moo di Soudan di amal li nga xamante ne moo di coup d'état bi beneen question bi ci topp mooy bu fekkee ñoom ñaan ñoo ànd ba def lii lépp daaneel ki nga xamante ne moo di Omar El Bachir ñu créé benn nguur ñu daaneel nguur googu noonu taxaw samp lan moo andi problème ci seen diggante tey ba guerre am problème bi nag fii la commencé ki nga xamantene modi Alburhan dafa jot ay aide yo xamantene dafa jóge ci communauté internationale yëmu ci lolu aussi mu garantir len que ne réew mi nga xamantene modi Soudan dina fexe ba li di démocratie delu ci fa mais nak yëmul ci lolu dafa wax force bi nga xamantene modi RFS mu ñëw bokk ci force nguru Soudan c'est-à-dire au lieu que ñuy am ñaari corps militaire corps militaire yi nekk benn kenn kese jiite ko mu nekk ki nga xamante ne moo di Al Burhan bi nga xamante ne Al Burhan dogal na loolu ba noppi nag ñaari at kese la jox délai ki nga xamante ne moo di Dagalo ngir mu préparé wu andi arme bi nga xamante ne moom moo ko yore ñëw boole si ko ci nguur gi bi nga xamante ne dogal yooyu yëpp jóg na nag dagaaloo dafa lank ba tëddi ci suuf ne li nga xamante ne Burhan wax na ko du ko def rax ci doolu aussi mu ne ko procédure bi nga xamante ne moom nga ma jox ngir arme bi ma delloosil la ko ñaari at yi dëccee tuuti mu présenté ko beneen procédure boo xamante ne gën koo gàtt dix ans lay durer bi loolu amee nag tension yi wax yi di dem di delu ci fi nga xamantene fofu foofu lañ mujj nag mooy yëkkati armes yi jakkalo di def li nga xamantene modi guerre li nak nekkul lo xamantene dama leen expliquer deug deug yaq yi nga xamantene amna ci guerre bi parce que amna ci ay avion yo xamantene yàq nañ leen ak ay matériel yu bari yo xamantene yàq nañ leen ci réew ma li tax di jóg vidéo bi li ko tax di jóg nak moy ngeen comprendre deug deug lan mo waral guerre bi ak guerre bi fan la soxé ko je pense que ne peut-être leer na mais nak ben point kese la won bo xamantene dama koo andi woon rek pour résumer leen ko allah allahu taala di leen jox dig daje ci beneen actualité du jour di la wax rester branché rester connecté incha allah actualité dafay continuer encore une fois te objectif bi am rek mooy lépp loo xamante ne xew na ci àdduna bi mu nekk ab actualité boo xamante ne bu majeur la ngeen bokk ci ñi nga xamante ne yéen a ko njëkk a yëg bu ngeen ko yëg aussi ngeen bokk ci ñi nga xamante ne da ngeen di am ci information yi nga xamante ne de type qualité lay doon kon ma jox leen dig daje incha allahu taala di leen ñaanal aussi koor jàmm. agence immobilière Diaspora sopp na bi di expert en transaction immobilière leader dans le secteur de l'immobilier fii ci Thiès moo leen di proposer cinq volets de service la vente et l'achat de terrain la construction et la vente de villas type F2, F3, la gestion de biens immobiliers, la promotion immobilière et la consultance. Qu'il s'agisse d'achat ou de vente de terrain ya xam da ngay jënd terrain wala da ngay jaay terrain ya xam da nga am ay terrain yu bëri bëgg ñu liggéeyal la ko da nga bëgg kër F2 wala F3 xolal agence diaspora Sopnabi, Nabi. Ñom kat dañu am une maîtrise du marché am connaissance du marché local war le mëna guider taxawu la jàppale la ci say projet à l'agence immobilière Sopnabi Nabi nous nous engageons à vous apporter un suivi de qualité, de la réactivité et de l'honnêteté pour que votre projet devienne une réalité. Afin de vous proposer la solution immobilière répondant au mieux à vos besoins et aspirations, l'agence immobilière Diaspora Sopnabi prend le temps de bien vous connaître afin de vous permettre de faire le meilleur choix adapté à votre situation. que terrain souf, am terrain nous sommes sur les deux voies de à l'immeuble Sopnabi, villa numéro 107 à quelques mètres du rond-point de la ZAC de Ngent. mën nga 77 094 83 30 77 094 83 30 ou le 77 244 15 45 77 244 15 45 agence immobilière Diaspora Sopnabi Nabi dama jox leen seen cër respecté leen ndax seen liggéey bu set te sel ñi doon laajte gamme de haute qualité ay produits de classe ay produits de marque ay produits de dernière génération yéen ñi doon wër produit aloe vera yu baax yi disponible na ci Nabi Boutique bépp façon crème de aloe vera moo xam mind master liquide extrême wala sax vita active bàyyiwul dara yéen ñiy jàmbat problème wala yax yuy ruux wala sax sa contactel Nabi Boutique même su vous da nga bëgg a perte poids jarul le régime contactel Nabi Boutique mu jox la ci aloe vera yu baax yi da nga bëgg am Contactez Nabi Boutique numéro de téléphone 0039 375 735 34 51 ma bam 0039 375 735 34 51 Moi xam yaangi Europe wala yaangi Sénégal vous hésiter Contactez Nabi Boutique avec Nabi Boutique aajo yepp ay faju ak gamme produit yu yi